samp ko ci barab ni ma ahmadu ma ne ko mbàkke mu ne bis bu ko yàlla dogalee fii mooy sama barab bu boobaa nag nañu ma nañu ma denc denc woo xamante ni nii damay suufi suñ bàmba bi ñu koy denc ku nekk digg bi nit digg bi nit mooy gas ba jeex ñu denc ko fa te ci biir suuf la nekk moo gas ba jeex ñu denc ko fa ndax moom loolu la diggé woon Sëñ Tuubaa féete ko kaw. maam Cheikh Ibra Fall amoon taxawaay bu am solo ci yoonu murid lu ne mel mu fësal ko ginnaaw ba Serigne Touba dem géej. gouverneur général mu boo xam moo gouverne Afrique francophone de la VOF kooku nag moo yoroon dossier sëñ bi ci moom la Saam Cheikh Fall doon jaar. koko di jaar ci ministre de la colonie koko di jaar ci premier ministre France muy dem ci président de la république lu décret fofu lay jógee waye bala leen na nak nag day ñëw ci gouverneur général mam Cheikh ibrahim Fall nak ci mom fofu do len di jint dossier yi li mu nekk Gabon li mu nekk Gànnaar li mu nekk Jolof lepp moo ko li